yi xeex te def naa ne mun na am yàlla jàppale ñu. mu nga kon euh, daan bi El Hadj ginnaaw bi ma la nuyoo mujj naa wàcce muy kon ñeenti at ci Lamine Diack juróom ci doom ci décision justice kenn du ko commande certes mais question yi ñuy posé mooy tuuma ji euh, Lamine Diack bu fekkee dañ ko tuumaal euh, corruption am na ñu ñuy leen tuumaandooloon ñi nga xam ni ñoom ñoo joxe xaalis xëy na pour ñu gëmm ci dopage yu seen ay ñi doon compétir ci ñoom seen ay sportif def mais ñooñu ànduñu. parce que ay doomi russe lañu la moo tax jële wuñu leen la moo tax kepp ñu leen la moo tax piégé wuñu leen comme ni ñu ko defee Lamine Diack parce que xam ngeen ni euh, doomu russe yi kenn du ko ban jee comme ni ñu mën a defee doomu Sénégal dañu def mandat d'arrêt international contre Pape Massata Diack mais nañ ko def contre doomu russe yooyu nga xamante ni bokk nañ ci corruption bi alors sax ñoom ñooy base bi donc boo ko seetee duñu duñu du ñu contester dogalu justice parce que kenn du ko commenter certes mais faaw ñu samp ay laaj ci ni ñi nga xam ñoom ñooy base bi ñi nga xam ñoom ñoo ko sabab day nekk ay nit nekk ci milieu sport ñoom lan moo tax kenn attewu leen lan moo tax kenn kenn tegu leen ay daan lan moo tax demuñu jëli leen lan moo tax defuñu euh, lancé wuñu mandat d'arrêt international loolu ay wati taxas genn wet yoo xamante ni bi itam c'est dañ ci ñu bàyyi ci waaw ñu bàyyi ci xel mhm. euh, beneen laaj bu ñu taxaw samp sax Abdoulaye Mbow ndax kon réewub Sénégal ñoom amuñ luñ ci waroon na def bu fekkee ñële ñoom euh, dañoo làkk seen yaay doom effectivement loolu wax joo xam ne yàgg na fii si Sénégal la waaye damay jàpp ne xëy na eh, par rapport ak benn approche diplomatique taxoon na peut-être président wala boog euh, ñu mu àndal doon xaar ba verdict bi daanu xëy ñu mën a entreprendre li ma xam ne moo phase de combat politique bi pour mën a àndi fii ki nga xam ne mooy Sénégal Lamine waaye lu si mën a am ba mën a am verdict bi buñ ko xoolee verdict dama koy jàppee ne verdict raciste et colonialiste la parce que am na jurisprudence bu fi nekk muy Michel Platini nekkoon fi président UEFA ak Sepp Blatter nekkoon fi président euh, FIFA fait de corruption xam nag suñu biir la ñun sénégalais yi par ak xaalis bi ak politique bi loolu suñu biir la waaye bu ñu ñëwaatee ba si biir am na beneen angle boo xam ne c'est un angle politique approchement am ak rapprochement am moom ak Vladimir Poutine te xam nañu Vladimir Poutine naka la pays occidentaux di ko tegee bët loolu yëpp dañ ko war a jàngaataat bu baax bañ a def analyse li nga xam ne mooy émotion mais def dans une analyse vraiment profonde verdict raciste waaye Pa Assane dañu naan uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee mooy dëgg loolu rek fi de wu de ni mu la gisee la lay moo dine tënk nga ko ci li Abdoulahi wax ak euh, ki nga xamante ne mooy Mansour mooy ñi nga xamante ni am nañ fulla ci seen i njaboot kenn sonalu leen ñi nga xamante ni sàggan nañ ci seen askan ñoom la ñuy sonal encore que yow mi nga xamante ni yaa sàggane sa askan yaa ëpp looy jox dëkk boobu di nga xamante ni mooy lay sàggane donc fulla mooy jaay daxaar tënk bi mooy que tey am na taxawaay boo xamante ni suñu njiit fii bu buñ ko amoon ci wàllu diplomatie defe naa du ñu agsi fii li si des nag mooy ñaanal ko yàlla yàlla suturaal ko et puis sénégalais yi gën a xam ne que gën a xam ne que gën a xam